Palen Cuuraay Abi Produit Cissé Global Service ñu leen di may góoru bay ma sëy ni képp kuy jigéen bëgg nag rafet lool taaru jekk a teg ci nag am teint bu mucc ayib dawal gaaw nga dem fa nga xamante ni moom mooy ci abi produit abi produit di jaay ay diw yaram yu baax moo xam nga nekk teint marron teint noir wala sax nga nekk teint clair dawal gaaw dem seeti ki nga xamante ni moom mooy abi produit boo fa demee dina la jox ay diw yoo xamante ni dafa méngoo ak sa yaram yow mi nga xamante ni da nga doon xeesal ba xeesalatoo sa yaram cere yàqu baax foo jëm dawal gaaw nga xooli abu produit boo fa demee dina la defaral sa teint ba mu baax di nes nes nga bëgg cheveux naturel boo xamante ne yu xew ci jamono la moo xam rew xeer ak bépp xeetu cheveux demal nga seeti abi produit boo fa demee di nga fa fekk cheveux yi nga soxla wala sax ay crème de visage yoo xamante ne dafa lay defaral sa kanam ba muy nes nes yi képp ku la gis daal di lay soob abi produit ba tey dafay jaay li nga xamante ne moom mooy ay pâte yoo xamante ne dafay xeeñal gémmiñ abi produit ñu delluwaay janoog lycée Seydina Limamou Laye boo wàccee mbaxtal gi nag mën nga leen a woo ci 77 352 38 09 77 352 38 09. produit soxlaatu leen di wër benn yoon gisal nañu leen. yow mii di jigéen di ma déglu nga bëgg lu baax bëgg sa boroom kër di bëgg ci yow H24 dawal gaaw dem fa nga xamante ne moom mooy ca Falen cuuraay adresse bi benn kott la boo fa demee di nga fa fekk ay xeetu cuuraay yu mucc ay fekk fa ay and yoo xamante ni nag ay and simple la waaye tamit di nga ay and yoo xamante ne ay and électrique la da koy branché xet gi di génnee a fépp ci biir kër gi Falen cuuraay yemu ca boo fa demee di nga fa fekk ay nuisette yu mucc ay ak bépp baax baax xamante ne jigéen da koy soxla jamono jile ngir neexal sa Fallène Cuuraay adresse bi fenn kott la yaa ngi toog di ma déglu bëgg jot ci seen ay produits gaawal gaaw nga woote ci 77 629 16 80 629 16 80 wala boog nga doxal ko fi nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Géejawaay boo fa ñëwee dinañ la teeru tatagal la. Fallène Cuuraay daal. moo meilleur kay. global service implanté wu nañu nag ci digg Ndakaaru Ndiaye di jaay ay matériel électroménager yu mucc ayib yow mi nga xamante ne da nga soxla téléphone à tablette frigo ba ci sax li nga xamante ne moom mooy ordinateur portable dawal gaaw ci Cissé global service boo fa demee ay matériel yu mucc ayib yoo xamante ne lastikri la maanaam dafa ànd ak jamono ah, Cissé global service jéemuñu ca bu ñu la jaayee matériel dañu la koy garantir ab diir bu yaatu ah, Cissé global service ba tey dañuy def li nga xamante ne moom mooy transfert d' di jaay ay matériel yoo xamante ne da koy soxla ngir équiper sa kër ba mu daal di rek taaru rafet képp ku fa ñëw rek daal di lay respecté ngir nga jot leen wooteel ci 78 ak 485 60 03. tegal sec bu normal de maaleykum salaam. Ah, yaay booy mbaa yaa ngi am jàmm naka koor gi yaa jëf. fala ilaha ah, ah, illallah muhammadu rasulullah yaa booy jàppal ci suukaru café yi mbaa yaa ngi si jàmm koor gi xaw naa tàng tey de jaajëf yaay booy yàlla yàlla fay la fala ilaha illallah muhammadu rasulullah Kampaañ. looy doyal yow. waaw ñun dañuy def nii bu ngoon jotee ñu màjjal suukar si café gi séddale ko jaamu yàlla yi nga xamante ne dañuy dox ba dox fekk leen ci yoon wi. loolu liggéey Baye Fall te doo Baye Fall. sa lu tax nga ne du ma Baye ab Baye Fall dëgg. day def yi rasta. doxal benn. ci li nga ko jàppee. ñaareel bi. day sol an sa laxasaay tànku leen lu tax bënnoo sa bakkan bàyyi faal dëgg muru sa baay loolu nga jàppee ak Baye Fall dugg Baye Fall. lan mooy Baye maam Cheikh Fall Baye Fall laa. mais day yomb trop Baye Fall laa Baye Fall laa yéen Baye di jëf di jël mais li ngeen def ah koñ beeg coow. naan da ngeen di màjjal lu ñu leen jox grand ngeen def ci café guddi ngeen def seen yooyu noonu ngeen def ah. xoolal ma kële moom. da nga koy déglu moo la dëgg dëgg Baye Fall mooy mel. Fall déglu ko. bul tuumaal da bëgg a xam dëgg-dëgg lan mooy Baye Fall. loolu loolu moom bëgg naa ko xam. topp ma. fu ñu jëm. si Baye Masseyni. almasa. jeex na nañ dem mu attañu. nañ na tey ma seen borom almasa siyaar naa la doon naa siyaar naka coole ana moor moor daal ba mu xëy suba la dem ma toog ba si ak sama xel nekk si man naa dem seeti bàyyi ma sëy ni def nga lu war nag tey moom bàyyi ma sëy ni nga def nii sañ sa nga de ah, ah? waaw yàlla saatu baa ma ko jox saatu ma sëy borom almasa ma sëy ma sëy borom kan procureur kan procureur kan ah, waaw. ziar naa de gëj naa gise kay. namm naa la alhamdulilah kay. waaw kan suma kër. ah. moom lu fi def. waaw Baye kii de maa ko fi mhm. ndax damaa romb may màjjal. mu ne ma man du ma Baye Fall ndax defuma ay rasta defuma tànk soluma ay yére yu ma ne ko nag dëgg-dëgg Baye Fall du loolu. Mhm. mu may laaj dëgg-dëgg Baye Fall mooy lan ma ne ko kañ dem ci Baye looloo waral suñu tànk. almasala wala waaw ah, tumbale nag du teew ñu nataal te ginnaaw ma mañam mbaay ngi nii mañam di Baye Fall leer na dëgg-dëgg Baye Fall. ah euh, Baye Mousse. Mhm. xam nga ne ma ñam. man fu ne laay ñam. damay ñam ba ñam buy kër Cheikh Ibrahima. ab Baye Fall. Mhm. di maanaam du sori sagar. di bënn nopp. ab Baye Fall di naan. Mhm. du tux. du fen du saaj. Cheikh Ibrahima Fall. maanaam boo gisee ñu daan ba biir tàkkusaanu ndar sax ndar. ñu naan ñu seetaan tàkkusaanu ndar ñu naan tàkkusaanu ndar tàkkusaanu Cheikh Ibra Fall a tax. ndax Cheikh Ibra dafa so dafa silwisi bëgg boppam. la xam ne génn sañ sa lu rafet. ndar ñëpp dañuy génn du ko seetaan. ndax silwise gi ak bëgg boppam gi. ab Baye Fall day nangoo liggéey. bëgg boppam si naq ñaq ñuqi joxe mhm. ab Baye Fall loolu mooy war a Baye Fall te mag ñi am na benn mag mooma saanu way si Cheikh Ibra Fall mhm. ni Cheikh Ibra Fall wàcc na mhm. bay na sasam ba yegg na def na suñu lu jaadu na sax si liggéey ba am gërëm tërbiyeetul si kër xat bi moo ko saxal kenn di ko mim ku sax si moom te ñàkk ki foog mu def si yow ngërëm loolu mooy dëgg dëgg Baye Fall leer na maanaam dafa leer naañ maa ngi jégg fekk na àdduna jàng-jàng këyit loolu loo tax nga xam lépp te ci gisin rek laa mën a jugé. ma foogoon ni Baye Fall noonu lay mel. waaye comme ni nga ko waxee. ah bis ni ko tey tey nangu naa ne. jàngal nañu. ba tax tey kenn du fay. man man ah. maay fay. man maay <laughs> fay. Eh, ah, moo tax maa fi de. maa ñam tey tey damaa ñam tey. ah baax na jërëjëf jërëjëf maa ngi jégalu waaye. jaajëf jaajëf bu def man man am lu ma def. jaajëf jaajëf jërëjëf maa ngi dellu waay. jaajëf kan jaajëf kan jaajëf kan. ma ja bàyyi bàyyi ma sëñ. waaw ñam. ah ok yàlla tey. ñam. waaw. ñam ginnaaw ñam doo ma ñamal. ñam doo ma ñamal. waaw yow toogal lii ma doon si ngay am naa. eh. dilum Ndiaye. nii wallaay pexeem Njaay la Njaay fexe na ba indi ku may pirate ñu ni déete waay mu yebal ma ñëw sama kër. yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg a ñëw si Habib. Euh, nu mu tuddati Habib produit mii. yéen ñi jógee côté Pikine gi da ngay ñëw ba si lycée Limaamu Laay bi nga wàcc yéeg ba mel ni kuy dem marché Njaareem porte Limaamu Laay bi boobu ngay topp nag boo ñëwee fii boo laajee Habib produit ñu woon la boutique bi. yow mi jóge nag côté côté yombal gi arrêt jàkka ji ngay waaj topp tali boobu noonu nga dugg foo laajte abi produit ñu won la ko ñi nga xamante ne ñoo nekk Touba si garage bu bees bi foofu ngay ñëw surtout station Oryx bi ah, station Oryx bi foofu ngay ñëw boo ñëwee ñu won la bitig bi lépp loo fi soxla am na fi. même numéro bi nga yor nii mooy jot bu Touba. déedéet am na yeneen numéro yoo xamante ne boo fa wootee man ngaa jot waa Touba. ban la ban la bi nga pour bi nga xamante ne bu ma ko wootee Touba ma jot ko ndax man sama ndey mi ngi bawol. mi ngi bawol te bu dee foofu doo dootuma yónnee damay bàyyi rek mu dem jën foofu. ma jox ko numéro téléphone bi mu venir ko foofu. te loolu nga xam bagage yi am raas am fii moo am fii. jox ko numéro bi. ca la soixante numéro numéro bi nekk Touba. waaw ah. mën nga ko jël 77. 77 352. 352 38 09. 38 09 waaw numéro boobu boo ci wootee. waaw mën ngaa jot waa Touba. waaw ah, yow da nga amul xel ndogu ah damay préparé waaye ndogu goo nodd na. ah xanaa déggoo nodd bi. nodd daa jot. dina ndo ndogu jotagul nag yow tamit ragal ah, lekk dëgg. waaw man loolu laa wax waaw ji lan moo tax du toog ci kër gi. ah ji moom heure xamul ndo jot mu ñibbi kër. ji bi. da tax nee naa ko ndi yaay. am naa sama waaja. amee ah waaw. heure bii damaa xam ne ndeysaan moo ma daan jëlee li mburu xasal ma kaas yi ñëw indil ma lu ma ko yónni mu ne waaye jébi amulul njëriñ yàlla ànd ak amet moomu day man ay mbiram sax man damaa dégg ci jàmm bu nekkul ci ma dégg ko jaaxal na ma trop ah naa ko mën de rëccu naa lu mu doon jaaree ci gaal ah man damaa dama daf maa mit ah <laughs> ginnaaw da nga doon dëbb koy ba def li nga def kay ah? loo ci góob rek na ko gar waaye li ma la mën a xamal daal mooy namm naa ko lool lool lool ah, xam nga nag man lii sama problème mooy ah bi nga xam ne Ablaye jàll man ma jàpp ne moom it bu demee day jàll rek laay ah. yéeg di woo seen waa kër. Ah. teral leen commencé yàggul muy tabax seen kër di ko defal ay lu ma bëgg lu dul mu dem di. loolu dong ma ci dugal waaye am ah waaye wax dëgg yàlla day bu doon bi nga sogoon moom dina woote de. waaye nag ni jaay am na daa de. fi ne soo demee ma ngay liggéey di dajale. di xaar rek am lu bari dafa ñëw surprise ba ma am mel ni ma ko xamee. loolu daal yow yaa ngi xalaat man daal man daal tiit naa ci de. boobu ba tey comme dégguma ko daal moom ah, wax dëgg yàlla moom tiit naa ci sama xel dal. waaw waaw ah, ah waaw waaye tamit man damaa doon doog biir bi day pour wér rek. yow mii di jigéen di ma déglu nga bëgg lu baax bëgg sa borom kër di bëgg ci yow H24 dawal gaaw dem fa nga xamante ne moom mooy ca Falen cuuraay adresse bi benn kott la boo fa demee eh, di nga fa fekk ay xeetu cuuraay yu mucc ay a ah, fa ay and yoo xamante ne nag ay and simple la waaye tamit di nga fa ay and yoo xamante ne ay and électrique la da nga koy branché xet gi di génnee a ah, fépp ci biir kër gi Falen cuuraay yemu ca boo fa demee di nga fa fekk ay nuisette yu mucc ay ak bépp baax baax boo xam xamante ne jigéen da koy soxla jamono jile ngir neexal sa Fallène Cuuraay adresse bi fenn cote la yaa ngi toog di ma déglu bëgg jot ci seen ay produits gaawal gaaw nga woote ci a 629 16 80 629 16 80 wala boog nga doxal ba fii nga xamante ne moom mooy ci diwaanu Géejawaay boo fa ñëwee dinañ la teeru tatagal la. Fallène Cuuraay daal moo maye la ñuy waaj eh Baye Massey ñëw na tey mu bégal leen eh Baye Massey ñëw na tey mu bégal leen eh Baye Massey ñëw na tey mu bégal leen Ramadan ci Baye Massey woor ci Baye Massey Ramadan ci Baye Massey woor ci Baye Massey eh boo wooree ba ngoon balaa ngay dugg da ngaa war a wóoral